am na ay jafe-jafe yu bari yu ci am na posé en fait juge bi ay question ni ko dafa am ci maanaam ñi xam ne président Ousmane Sonko ñoo xam yoon daf a ci mel ñu bëggoon pour organiser waat sunu sunu défense waaye du lay woowu rek beneen lay bi mooy kenn ku ne na ni le 16 maanaam mars bi xam ni moom la ñu dàkke woon audience bi Ousmane Sonko ay violence dañ ko ex asalaamaaleykum mbokk internet seen kaddu TV international ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog ñuy jàkkaarloo di ñu si saa su ne ci waxtu wi eh, di jaar nag ñëpp ñëpp ñëpp nag eh, émission bi nekk émission il est temps nekk premier numéro ci seen seen kaddu eh, di jaajëfal nag ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fii ci mim réew di ñu seetaan fële ci bitim réew di bëggee ñëpp nag fi ñu toll émission bi nekk émission bu mag émission bi nga xam ne nag moom la nit ñi doon xaar muy émission il est temps il est temps nag dañuy lu bare bare bare bare waxtaanee ci xam-xam dañuy waxtaanee tamit ci politique en général tey nag ñu am gan gu mag gan gi mooy kan Abdou Aziz Seck kaamil ki nga xam ne tey euh, kilifa la ci réew mi te kenn du ko naatable mu nekk koo xam ne tamit euh, mu ngi dëkk ci ba bokk ci kilifa diine ci kër yu mag yi euh, moom la ñuy dalal tey seen émission il est temps il est temps nag dañ ci waxtaan ci pàccum politique en général dañuy waxtaan tamit ci pàccum xam-xam maanaam ci li réew mi soxla jamono bi tembe ñu dalal ko rek daal di ko ci nuyu rek daal di xool nag moom tamit lan la ñu war a mën indil Abdou Aziz ñu ngi lay ziar sëñ bi. ah oui salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi lay dalal ci seen seen kàddu. waaw jërëjëf ginnaaw bi sant yàlla. julli ci yonent bi salaa sallam. di wax ni alhamdulilahi alladi hadaani ila tariq Ahmad Tijaani. summa salaatullahi wal amaani ala nabiyihi madal azmaani. summa ridallahi ala Tijaani ma baqiya lislaamu wal ihsaani. ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi salaa sallam xeerul xalq. tëbb ci leer Seydi Chamal Tijaan yi di jaajëfal suñu maam sëñ Thiénaba yàlla dala ñu ko fayal hmm. di nuyu alxalifa xalif général de Tijaan de Thiénaba suñu hmm. maam sëriñ Xasan Seck ak yàlla di ko ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi amiin amiin amiin amiin wéral ko ñu koy jaar bu wér mbooleem xalif généraux yi nga xam ne tabaarakallaahu ñu ngi ci Sénégal hmm. di sunuy ñoom ñëpp di sunuy maam di sunuy kilifa di sunuy sëriñ ñu ngi leen jox seen wàccuwaay yi nga xam ne moom la leen suñu borom jox. Mhm. ngir seen i barke moom. wallaahi di leen ñoom ñëpp tawféex ak fanu gudd. Ah, di ñëw ci plateau bi di nuyu téléspectateurs yi ñu suivre yëpp. waaw di la nuyu yow Lodja dèjà. seen seen kaddu TV waaw seen kaddu TV. Mhm, muy kaddu askan bi waaw di kaddu askan bi. di ñaan mbokk yëpp incha allah ñu bàyyi ko xel. Mhm. suivre ko gën a fonk yëf yi incha allahu taala te dañ ci ànd ak yéen ci zaahir ci baatin incha allahu taala. kon ñu lay fay nuyoo di la wax macha allahu taala ñu ngi ànd yi. ñu ngi lay ziar euh, sëñ Abdou Aziz euh, Seck Kamil euh, di la dalal nag ci plateau bu rëy bi nga xam ne ni que defe naa ne yàgg nañu di ànd saa su nekk ci ay plateau mm-hmm. biir rawatina nag bi nga xam ne rek mooy plateau bi nga xam ne rek mooy plateau nekk premier numéro il est temps ñu mm-hmm. waxtaanee li nga xam ne moom la askan bi soxla saa su nekk ci miin réew mm-hmm. rawatina nag waa bitim réew première question bi rek mooy foofu ca ba tey su ma la bëggee laajte kan mooy sa waajur bu góor ci kër gu sell googu di ziar na xalifa bu baax a baax a baax di nuyu tamit waa Canaba yëpp di leen ziar jamono bi ci ramadan mubarak bi rawatina nag waa kër gi. waaw man ñun de suñu waajur mu ngi tudd Serigne Souleymane Seck borom xaas. Mhm. ku ne xam na ko ci réew mi mu jaxasoog mbooleem doomu soxna yi ci këri diine yi waaye mu jaxasoog mbooleem Sénégal yëpp. Mhm. la foo dem ci Sénégal foofu laajte xam nañ ko borom xaas. Mhm. mooy dàkkantale borom xaas ndax. Euh, Alaaji Idrissa gay boo fekkee min nga muy waxtaan ci RTS. maa koy dégg ah xam naa ko magu mhm. Tafsir Abdourahmane Gaye mhm. moo tuddee borom xam mhm. ndax kéemtaan gu mu defoon ca Espagne. tabaarakallaahu di li liggéeykat ya fa newoon moodu moodu yi. doon liggéey policier sonoon leen. mu woo leen leen dem leen xëy tey def ay mbir leen leen jàpp bu leen bu leen arrêté tey ma xaj ci tariix Cheikh Ahmed Tidiane. ci yàlla mag ñu baax gars yi dañoo dem fekkuñu fa waaj. ñu ko affecté feneen xaw ma dafa yoo xamante ni bi tey ci la El Hadj Idrissa Gueye jaaree tuddee ko borom paas. saa sëñ di nittu yàlla di borom xam-xam tabaarakallaahu ci canaba sañ ci sañ ci fu ñuy wax madinatu canaba. madinatu Touba Gueye. Mhm. yor fa daara tabaarakallaahu ak ndongo yi. Serigne Saliou meloon ci ndongo yi ci xale yi di ko wër noonu la mel ne seen biir tabaarakallaahu nittu yàlla ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara kooku mooy suñu wayjur bu góor meññu ñu boole ñu njabootu Cheikhu canaba bu ñu bokkee si njabootu suñ Canaba moom moo tax suñu moom suñu wayjur wayjuram Serigne Jibrilu Seck mm-hmm. nekkoon nitu yàlla nekkoon aarif billaahi mm-hmm. xam yàlla dëgg-dëgg bu masaana wax bu masaana bu moom nit masaana tooñ bu tibbee suuf bu bu ko sànnee rek nga tàkk wallaahi boo masaana téye loxo su naan ah, rawaan yi day am tubaarkàlla waaw dem na rawaan yi day yóbbu nañ ko bu ñu téye loxo bi it moom faaw mbir dal ko waaw bu ñu daan tere làmbu Canaba ba kenn du fa bëre daa wax sëñ Ibrahima Seck ba moo nekkoon xalif Serigne Canaba deuxième daan bàyyi leen mu ñu dem rek ku bëgg say waaye yàlla di lang ba ba toll ni maar de taari hmm. na rob na jéggiraay bi kooku ma doon woy juram nekk sunu maam tafsir Madické di jur Serigne Djibril Seck maam Madické. kooku dañ ci def benn entre parenthèse def ci benn documentaire parce que loolu émission spéciale laa ciy def. dina ñëw ba Thiénaba seet ci kilifa boobu xool taarixu diine gi fa am. Ah, incha allah voilà yaatu na lool. yaatu na lool euh, ngeen nekk ay kilifa diine créé benn kuréel bu tudd. Mhm. benn mouvement. Mhm. Euh, tey mouvement boobu euh, lu tax ngeen créé mouvement bi ak mouvement bi kañ la juddu ak mouvement bi lan moo ko tax a juddu. Mhm. ak kañ la juddu. wa mouvement bi day euh, bi mu juddoo yàggul maanaam mm-hmm. sept fév sept sept euh, sept février bi ñu génn mm-hmm. ci la ci lañ ko créé ñu toog waxtaan ñu doom soxna yi nga xam ne mm-hmm. tabarakallahu yàlla dof yàlla def na ñu am euh, gis-gis am yëg-yëg ci ki nga xamante ni moo mooy Ousmane Sonko maanaam dañ naan nit boo taxawee ci seetu sa bopp ngay gis waaye ñun dañ bu ñu jàkkaarloo Ousmane Sonko dañuy gis suñu bopp moo tax ñu yëg suñu bopp ñun ñu dajaloo nee na war nañoo créer loo xamante ni bi tey mën nañ ci jàppale Ousmane Sonko ci wax ci ñaan ci taxawaay. Mhm. ñu tuddee ko Serigne si ànd ak Sonko. Serigne si ànd ak sonk loolu loolu slogan bi tudd. ñoom lañ tu ñoom noonu lañ ko tuddee woon. au mhm. début. Mhm. mais bi ñu demee ba ci biir ñu waxtaanaat mbir muy dox de da dox ci ci xam-xam. ñu ñu structuré ko maanaam mu dox ci loo xamante ni ku ko dégg dina xam ne kii la ñu proposé loolu ñun nañ ko tuddee mouvement des marabouts patriotes. Hmm. boo déggee moo daf keroog ki doon jaalale kii bi sëñ Babacar sama mag la hmm. moo doon jaalale mouvement bi doon wax ci Ousmane Sonko naan ko ko gis xam ni noosatul dama war a noosee waajaam ngay jaawale dem moom sax ci waaw waaw moom ñu hmm. bu baax waaye benn lañ lu bokk nuroo mais te yow euh, loolu moo waral loolu moo waral ñu sos mouvement bi waaye nag gisit ni maanaam maanaam maanaam war nañoo am ay taxawaay ci ci réew mi mhm. waru ñoo toog rek yet ne suñ kurus yi mhm. ne suñ sijaade yi ne suñ daara yi ne ne ne ci di di recevoir toog di xaar addiya sol gram bu rafet ñu xaar talib yi jox ñu addiya mhm. te ñoom ñi jox addiya sonn nañ seen dund metti na moo tax ñu yëg suñ bopp créer ko xool këri diina yi fu ca ne moo xam sa sëñ Touba sëñ Moustapha Mbacke ma nga ca ak sëñ Khadim Mbacke ñoom waa Darou Mouhty euh Ndiassane sëñ Abdourahmane Kunta ñi ngi fi waa ndànk sëñ Bu Kunta Cheikh Omar Niass sa Kaolack. Mhm. Cheikh Baye Mbaye Niass sa Kaolack ak Dalika ak euh, sëñ Sidi Ahmed Si ci Tiwaawan maanaam fu kër diine ne rek. boo mhm. bañ a juum ñu ngi ci kuréel gi. ngir taxawal mouvement bi ngir liggéey ci yàlla dogal nag ma nekk ñu jiital ma nekk coordonnateur bi. Mhm. di coordonné yëf yi mais dañoo defagum maanaam bureau provisoire rek bàyyi noonu. bu demee ba lancé mouvement bi. dëgg ko yaatal ko. gën a woo kilifa yëpp incha allahu taala ngir ñu ñëw gën c jàpp loolu moo waral mouvement bi. am na solo euh, muy mouvement bi nga xam ne ay ay marabout patriote lañu euh, jóg pour uniquement pour jàppale Sonko euh, sëñ bi ñu ñu ñu gis ne ñu gis ne ak fu mi toll ci politique en général politique mu njëkk ba dañ ko baaxee woon politicien kese tey tey ñu gis tey yéen ñi nga xamante ay ay ay guides religieux ngeen laay mën a wax mm-hmm. maanaam yéenay sàmm askan bi ngeen jóg uniquement pour dugg ci làngum politique est-ce que xam nga lañ nar fekk ëllëg. waaw xam nañ ko ndax dañuy wax ni politique Mhm. dafa salte ñun mën nañu sax ñëwuñu def politique Sénégal boobu mhm. maanaam politique bi ñu fi fekk mhm. muy ay saaga ay xaste ay mën a attan jël daf nit daf ko lu métti loo xamante ne bii tey baa nga xañ ko ay biom ñun loolu dañoo bëgg mu changé te gis nañ ki porté projet boobu loolu lañ gis ci moom bëgg mu changé moo tax te ñun gëm nañ ni euh, loolu ci am au début dina metti yooyu dina am dañ ko jànkonteeg yooyu risque yooyu yëpp waaye nag gëm nañ ni changement boobu dina am ndax loolu politique rek warul tax bu ne nee politique rek ñëpp tiit. Mhm. ndax politique rek bu ñu koy définir mooy la mooy gérer cité bi. mooy lan fexe mhm. ba ba ba mujtama bi ñu nekk. Mhm. ñu defar ko ba ñëpp mën fee dund ci jàmm moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee Medina loolu la doon oote. ñëwee Màkk la doon oote. moo tax mission boobu la réussir ku ci nekk am liberté am xurriya doxal sa gëm-gëm waaye nag tubaarakallahu doo tooñ doo attaqué kenn loolu noonu solution boobu la doon indi léegi nag ñun. il faut ñu dugg ci combat bi ngir la yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. euh, euh, réussir woon ci mission ba ñëpp dund ci am am xayaat silmiya maanaam hmm. dund ci jàmm am cohésion social hmm. il faut ñu dund ci loolu mais politique boo nee politique rek ñu ne ah tiit déedéet mais politique bi ñu gars yi def ak ñun bi ñu dugg ngir def noonu bokkul ñun luñ bi ñu bëgg mooy lan comme ni ko yonent bi sallallahu doon defee nit ñi am jàmm li nit ñi bokk ñëpp bokk ko li nit ñi li nit ñi bokk ñëpp mën cee jot ñëpp am si jàmm kenn dootul dugg ci politique yu ne ah politique day kooku day ah du wax ko du dëgg. dëgg la loolu politicien loolu la ñu njëkk a xalaat. loolu la ñuy wax nii. lu mu la wax léegi mu génnaat bu ne naa la woo léegi doo ko dégg bu ne la maa ngi nangam sàngam bu bu bu joxante rendez-vous faussé ko ngir ay wax di def ay mbir ngir am pouvoir wala am position wala am base. Mhm. wala ñu fal la dara di def daf yu ñaawteef ci wàllu euh, njabar. ak mhm. ak fétiche yu mel noonu. Mhm. yooyu dafa war a jeex ci réew xam naa du yomb nag. ndax Sénégal ak réalité Afrique politique ni ni mel du yomb waye ndànk ndànk. en tout cas dama gis nga jaar fenn muy politique yentel mohammed ci Maktal Mukaram ba muy xex pour jël islam. Mhm. mu wuté lol ak suñu politique jamono bi tembe suñu politique bi mu nek jonganté parce que hal xol da nga ne da ngeen nasional, ci da ngeen politik. ci arène mhm. arène nationale manam muy arène politique mhm. tay fi ñen xaré moy ak fu président Macky Sall euh limu defal kër diiné tay dem ba kër diiné ut seen benn mouvement dem ànd ak opposant la ma leen ci président Macky Sall daf leen liggéeyalul ak li mu jot a def lépp ci ci kër diine yi yéen ngeen xëy bàyyi ko vraiment ne gisu leen ci moom dara ngeen dem ànd ak Sonko pour lan. waaw ñun ñun ñun buñ ko bàyyee am na ñu ànd ak moom am na ñoo xam ne ñu ngi kër diine yi te tey Macky Sall àndal. Ah. ah yaa gisoo ñu ñu génn barki dem ñoom xaadim Bousso ñoom eh, génn dañuy nangam sànq ñoo lañu àndal ci kër lañ bokk léegi nag dafa nekk loo xam ne démocratie la ko am nga choix mhm. ak ki nga xamante nga sa bopp mhm. muy ci jub ci nangam sàngam ci ay waxam doy la et cetera parcours am mhm. kooku rek ngay mën a delluwaat mais nekkul nii dañoo kii Macky Sall dañ ko bañ dee mais politique am neexuñu doxalinam neexuñu ci wàllu ci wàllu sonal doomu aadama yi maanaam maanaam nit ñi sonn sonn nañ sonn koo xam ne sànq rek maa ngi koy wax nit ñi sonn nañ boo génnee ñu mbedd mi ku taseeg yow da ngay gis gor soo xamante ni wóor na la ni mën mënta ñaan mu lay ñaan sëñ bi jox ma nangam di làqatu sax nga xam ne kii sonn amul dépense mu bu këram bu dee politique Macky Sall ñun doyuñu ñun ñun ñu formé wu suñu mouvement ñun doyuñu maanaam Macky Sall li may faral di wax maanaam bilan ci wàllu politique. Mm-hmm. fexe fexeel opposant yi tëj mm-hmm. leen. waaw askan bi sonn. Mm-hmm. nangam sàngam. maanaam bi je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. waaw xam nga loolu la wax. waaw loolu la de. dèjà kon yow xam nga mm-hmm. sans opposition opposant fi exilé Karim. non non mais foofu dafa waxee pour euh, defaraat euh, wàllu langue politique. defaraat la ba ku nekk am sa cër ci li nga moom. président discours kay.

nañ indi xam-xam du débat boo xam ne day doxal dëkk bi. Mhm. ci waa ressources naturelles yi. waaw ah. ci wàllu suñu économie. ci wàllu nangam et cetera et cetera transport. waaw yëpp mu ah. la ci indil ay. solution kon kon yéen kon yéen. livre am solution. waaw ah. kooku. fekk si ko ci débat boobu mais bu ko ci ay bases yoo xamante bi ay ay ay ay ay ay viol. Mhm. ay ay ay ay discours kii moo kii moo affaire non non non cadre viol bi. xam nga yooyu ci ci Karim Sall comme da ngay gëm ni. Mm. réduire opposition Khalifa Sall ñëw. mu tëj ñoom ñëpp dañoo illégal. te Sonko bu fekkoon amul askan bi tey ba léegi dafa dafay illégal. léegi beneen beneen question mooy tey gis nañu tey yéen ñi nga xam ne tey yéen ay jeunes religieux bi ngeen jógee pour def mouvement bi. est ce que waxtaan ngeen ci kilifa yi dem ngeen ci kër diine yi waxtaan ak góor yi. maanaam kilifa yi maanaam ñi nga xam ne xalifa yeeg yooyu. voilà bi ngeen demee wax leen ñoom est ce que mujj ñu leen wax te ngeen retiré wu parce que langum politique bi léegi ba ñu ci duggee ëllëg mën nañu diaboliser te mu na leen boole yéen sëriñ si seen biir parce que ñi jaar ne ñi jaar ni mhm. est-ce que ëllëg du yàq seen diggante nii. non ñun demuñu ci xalifa yi mais gis nañ ñi nga xam ne ñooy suñu wéyjur suñu kilifa waxtaan ci ñoom. Mhm. ba am na boo xam ne bi ñuy réunion sax suñu suñu daara wayjur lañ ko defee. Mhm. réunion bi njëkk def ci daje. foofu lañ ko defee macha allahu taala mu encouragé ñu ba kilifa yi nga xam ne bëgg nañ lu baax waaw am na maa lay wax leen nag kilifa yu bari dañoo mën a wax ci kaw rek waaye ñu ngi wax ci suuf loo xamante ne ah, kon dañu mën a mën. dañu mën a léegi nag ñun ñooy génn wax mbir mi ni mu ni mu demee. <laughs> ah daal lay tàng ci suuf moom la gone wax ci kaw. ñoom seen seen wàll wëy na. Ah. seen mbir baax na ñun nag. ñun ñun sax suñu mbir baax na am na ay prix bu ñu neexoon toog di laaj addiya et cetera et cetera waaye nag il faut ñu ñëw dimbali suñu. mais pourtant président liggéey na parce que am bi day. man dégg nga am ci wàllu politique réduire opposition ak tëj ak et cetera ak nit ñi fi dee ak manifestation yeeg. Hmm. moo gën a rafet ci bilan liggéeyam. bilan non yéen yéen yéen yéen en tant que opposant non attends en tant que opposant yéen li ngeen gis mooy dee beeg yàqu yàqute bi la moom ma bëgg a bokk ni damaa bëgg a bokk. rek bàkkaar la sëñ bi. waaw mais d'accord non attends attends parce que tey moom moo dugg ci langue politique tay bu fekkoon fi mu nekkoon la nekk mbaa mu jóge fa am ci leneen lu mu nekk kon lépp du ko ci fekk parce que seize ba mu yurnu def naa moo diis parce que président Macky Sall que moom pour man dama naan chaque jour Sonko troisième position la génne. mais politique buñ koy définir di définition yow sëñ bi. war warut a mën a méttee nii ay saleté yi di ci am. waaw mais nag. Euh, défi définition biñ ci am ngir bëgg a defar defar cité bi. kooku kay jarul diaboliser jarul jarul toroxal jarul jéem a jarul jéem non dafa bolu boole woon Sonko ci rang bi xam naa xalaatu ko woon. ah xale bi ñoo nekk caat ci biir groupe bi ñëw bëgg a jël paie. bëgg a fekk kilifa fu mu toll nga ne doñet seize am non est-ce que du diis. mais seize bi Macky Sall moomu ko. waaw mais moom ko mais moom moo fay kilifa. ah mais fay kilifa mais ñan ñoo ko fa teg sénégalais yi. sénégalais yi. sénégalais yi ñoo dem ba ni ah kii instant bi discours am bii li ëpp ci sénégalais yi boobu. Mhm. ñoo dem ba ni kii discours am bii doy na doy nañu nañ ko jël teg ko ci kii am ndax njubam ndax ragal yàlla. Mhm. ndax ay jikkoom yu rafet. Mhm. ndax yàlla kat du taggee nit lu dul ay wama xalaq wala qad karram déedéet wa innaka la ala xuluqin azimin loolu taggewu yonent bi taggewu ko dara ay nangam guuxi la ak ñàngal fii tagg yàlla taggewu ko kenn taggewu ko yonent bi ay jikko yu rafet la ko taggee léegi nag lépp population bi gis ci moom jikko yu rafet yooyu ragal yàlla am googu parcours am set musa sàcc bu fekkoon dafa ñëw mel ni comme gars yi ñun ñàkk ñu fayda mhm. duñ ko jàppale mukk mel ni comme gars yi fii milliards yeeg yi luubal fii. jaar mais est-ce que est-ce que na ci alxuraan yi muy tari parce ah, que. xam nga yéen xam nga sëñ bi sëñ sëñ si moom boo la bëggee góor tari ay saar jub quoi. est du saar moo tax nga ne i kii de wax dëggal ci ñun la bokk Idriss Seck ne ma mu juum non yeesaa mu juum yeesaa mu mu juum dafa jàmbaar mu juum weddi ci li a mu bëgg alxuraan ak li ko man voilà inna hada alqurana yahdi ak hiya aqwa alquran jooju mu man man ay ahadis yu leer di ko indi di indi ay ay ay ay ay jumla ci arab di ko wax mhm. di làkk arab yu leer man keroog surtout bi ñuy lancé moo daab lu ma gën a bett man foogoon naa ni euh, loolu mënu ko te man loolu bëggoon ah, bëggoon naa ko avant waaye dama ko gën a bëggaat ngir lim bëgg daara lim fonk daara. cofeel gi ci alxuraan. cofeel gi ci alxuraan ndax ñun mhm. boo gisee ñun tur bi ñuy dàkkanteel muy kaamil. Mhm. alxuraan ci alxuraan tax ñu dàkkanteel. waaye yaa kaamil. Mhm. kon bu gisee koo xam ne ma ngay ma ngay ma ngay ci alxuraan. tubaarakallaahu li ca wax aay yu leer. ahkaami tajwiid di génn. ma xaarijul xuruuf yi leer ni ma koy jàngee war dàquma ko kooku sëñ bi nag yaa xeeti Mawlana damay kontaan ndax man bu bu ma la waxee dëgg su ma déggee koo xam ne jàng alxuraan di ko yàq. Mhm. waxul yi wàllu mhm. mhm. euh, dem wuyu ci. na nag parce que euh, yaram bi tëcc nañ ko. tëcc nañ ko jaay nañ ko doole ci kaw loolu yëpp mais Euh, loolu yéen en tant que mouvement bi na ko gisee te bi xeex bi jotee est-ce ngeen ci terrain bi wàcc sumi garam bu buy ay tiset xeex wala na ngeen xeexee. waaw ah, ñun moom duñ duñ dem ci terrain bi. doon dem ci terrain bi yéen. ñun xam nga ay lacrymogène xeer moom. ah ñun lacrymogène ak xeer yi ñor mooy suñu kurus. déet déet sëñ bi. ku bëgg akaara da nga ñeme kaane. mu leen nekk da ngeen ànd sonko di toog ci fu féex xale yi di nekk ci rayante di gaañante. déedéet mais ku ci nekk non combat c'est des combat. ñun combat missile yi parce que benn yéen may ma rek may ma may ma may ma may ma tey tey ay kilifa ngeen mais ay jeune ngeen ah, tey leadership bi ngeen di jaay mhm. moom Sonko jeune la tey yéen yéen a bokk génération pourquoi pas ngeen sumi grand boobu teg ko fee wekk ko ànd ak gars yi maq ci ci grenade dëgg la ko ëllëgee parce que yéen ñi bëgg ngeen am assemblée nationale yéen ñi ngeen nekk ay maire parce que politique non non non ñun moom xaaruñu non attends seen mouvement mu leen def mouvement ne pour jàppale Sonko mu nekk président du ci gagné xaaru ñun gis nga doo ma sa dégg ñu ne ay maire wala ay député wala fa ngeen di jëm nag fa ngeen di jëm ñun ñun parce que buñ ci déggee buñ duggee mouvement rek buñ dégg ni dañoo war a dañuy politique politique carrément non non kon la ma la dugal ci politique dañoo bëgg a jàppale waa ji ndax ñu ngi koy néewal doole ñu ngi koy diaboliser ak këri diine yi tasawuf di ko giñ lu ne ñu ni nag yonent bi salaa salaam li mu waxoon ni as saakitu an il xaqi cheytaanun axras ku noppi ci dëgg seytaane bu luu nga waaye nag al xaqu xaqun wal baatilu baatilu dëgg moom dëgg la neen neen la mënuñoo naxa mënuñ mënuñoo jaxasoo léegi nag ñun gis nañ lii ñu ngi koy néewal doole te ci ay ay ay ay comploté ay ay nangam sànkam ngir ñu jàppale ko suñu soutien suñu kàddu ndax am nañu lu mu bon bon am nañu ñu gëm am nañu ñu topp am nañu ñu bëgg ak jàppale ko suñu wàllu crous suñu base la ñu fa suñu maam bàyyi la ñu ñaanal ko si yàlla mm-hmm. yàlla dëgëral ko mais pas dem dem ci terrain bi di di xanaa day xeer wala déedéet ñun loolu taxu ñoo jóg ay poste yi taxu ñoo jóg ay post ay nanga mu falu lii nanga pour l'instant doxewu noonu pour l'instant taxu leen jóg Sonko sax doxewu noonu ay kii ñaw jàppale moo faloo kii laay kii ah. compétence lay laaj wax na ko ba mu leer ay kii su ma faloo nangam sangam lay kii non non ñun jàppale wuñ ko ngir ay intérêt fekkoon intérêt dong la privilège yaa naa ci Macky ah moo fa ëpp doole. voilà kon yaakaar naa fa la ëpp. état am doole man la tax mu jaaxal ma parce que ngeen bàyyi kilifa bi nga xam ne moo yoru moo yor koom-koomu réew mi. ngeen am ànd ak la ma ko bëgg te yàlla tax. Hmm. dañ koy jàppale te yàlla tax. ndax lan discours am daf ñu convaincre man mii sëñ bi avant 2019 ma toog moom laay moom laay jàppale. Hmm. moom laa doon voté ñu ko fal 2012 ci laa bokk mais nit dafa am nooy doxalee Sénégalais dafa dafa bëgg de hmm. ak doxalin woo xamante ne bi fexe ba li ñu bokk ñun ñëpp ñu jot ci waaye boo fekkee da ngay am na doxalee ku mu am ndey ku mu ñii ñooy jot ñii duñ jot loolu sëñ bi waaw da da toog ba yàgg da naan ku jugul ku jugul complice nga. bu fekkee nag ñenn ñi dañoo taxaw bëgg a jàppale ko ci yenn discours yi wala nangam sàngam waxu fi loo xamante ne bi kenn waxu ko foon ñu fi ma a jaar ci opposition yëpp nit nag boo toppee ba am na foo xam ne bu fa àggee. faaw mu am nu mu waxee faaw mu am léegi nag jëm ci nga xam ne moom la Mame Mbaye Niang wax ci procès bi bi mu gagné procès bi. Mm-hmm. jubilé na ànd ak ay bokkam ànd ak ay partisans beneen bi mooy biñ ne dafa war a récupérer xaalis bi muy 200 millions yi ou 29 milliards yi mu laaj maanaam yi ko Sonko yi ko Sonko jiiñ mm-hmm. moom nee bu ko jotee def naa yéen la ko njëkk a sédd yéen ñii nga xam ne yéen a yore xale yi mm-hmm. yéen la njëkk a dafa def benn social bu rafet na ci affaire bi man la ko jox mais dama kon sëriñ si ànd ak Sonko fu ñu waa ji daal li muy wax noonu day day wax rek. gëmoo ko. man gaw ko sax te ñun soxlawuñ ko. soxla na xaalis boobu. ñun ko. déet mais xam nga 200 milliards moom bu jëlee 100 jox leen. waaw euh, euh, boo leen joxee 100 millions. mais lu mu ngeen tabax ay daara. tabax daara la. jàng jën ci ay kaamil. mooy tabax fi ñu waroon tabaxee daara état ñoo ñu war a tabaxal ay daara mais pas man Mame Mbaye Niang moo ñëwaat ay 200 millions ay nangam sax ñu soxlawuñ ko لن يالله دفع الجدارة لن يقدر دفع القرآن الكريم ها ما عندكم ينفد وما عند الله باق نعم لن سخلب دون أي ملأ سخلون لن نتي الله ما ما ينير مو يالله دفني لن نتي ين ديجيخ دس هم مليون وين جهون سام مليون يجلكوا جناس هو مديخ ويا الله نعم لما يرد دفع دس في te yàlla li li li ñaar yi la am ci kaw suuf. muy daara ak néegu ak néegu ak akum néegu muy jàkk. Mhm. wala jumaa kon ñu ngi ci daara nag yàlla duñ ci nekk mu ñuy seetaan ñun soxla wuñ dara na ko téye. ñu gis ne euh, <clears throat> ñu jógee ci 4 avril bi passé mu nekk 63e de fête mhm. de l'indépendance. <clears throat> Macky Sall woote euh, dialogue national. Mhm. pour woote opposants yi ñëpp ñu won ne fête bi nekkul feetu benn parti. feetu réew mi la. Euh, bi ngeen jotee seen convocation que dafa naa am ngeen euh, Sonko jotoon euh, invitation. Ah, wala moom dañ ko takkal seen kii yooyu seen tànk yi parce que comme dafa nekk. <laughs> dañ ko téye ñaari weer yoo xam ne ni dafa naa ne ak sursis. <laughs> dootul demati fenn dafa naa de. même bu mënoon dem sax man gisuma mu dem foofu man. mais attends indépendance nañ nekk. waaw indépendance sëñ bi indépendance indépendance te yow sa askan yaa ngi leen yaa sa askan man naa Sénégal fi ne nekkuñu ci indépendance ndax yow fi xamante ne ne. Mhm. koo xamante ne bi dafa am xaq ci ci ci ci yaani taabir li nga xamante ne bi maa fi joxbati yi maanaam mu wax li na ci moom ni réew mi doxee kenn amatu ci droit boo waxee sax ñu milimbat ñu jàppale yóbbu ci kaso bi ñu fexeel la kooku suñ bi amoo indépendance yaa ngi sa biir réew te amoo amoo liberté amoo liberté d'expression amoo liberté wax sa xalaat sax boo ne sonko mi kanam gi daa rafet sax ñu jàppal yow daal sonko doo wax ci moom lu baax boo ne sonko otom bi rafet na ñu jàpp la yow da ngaa war a toog rek naan Sonko dafa ñaaw dafa nangam sax dañ ko war a rey dañ ko war a taal léegi ñu la jox ay privilège mais bu fekkee da nga ne Sonko nangam wala nga wax ci benn opposant nangam sàngam ñu ñëw ñu la kirtim yóbbu léegi amuñu indépendance bu fekkee yow temps bi ñu koy invité ñaata ñaata ñaata militant Pastef la ñu jàpp ñaata sympathisant Pastef la ñu jàpp ñu def kaso bi ba pare yow yaa leen téye ba pare na ngay invité soo demee sax yëpp yëpp yëpp ñi lay xeexal ci mbedd bi la bu demee yëpp ñi koy xeexal ci mbedd bi la waaw c'est pas normal man su doon man du ma def léegi ñu gis ne euh, politique bi euh, li ci nekk rek mooy tey euh, dañuy gis que tey loo wax suba ñu yóbbu la VAR mm-hmm. est-ce que bés du ñëw ñu yóbbu leen VAR yéen li ngeen wax fii ëllëg ngeen xëy président mën na cee woo ci yéen tas seen groupe parce que dafa fort nag président il est très fort mën na xëy léegi dugal benn nag 400 millions ci seen biir mouvement bi ah ñoom sëñ Babacar ku nekk xëy changé xalaat. Mm-hmm. naan cest à parce que parce que Abdoulaye defoon na ko fii. Mm-hmm. Abdoulaye defoon na bi bi bi bi bi bi euh, euh, imaam yi mbooloo woon fii def ay calan. Mhm. bi mu la wooyee pale ba ñu génnee discours dafa changé. ma ne waaw léegi est ce que loolu du leen dal yéen en tant que kilifa bi jamono Macky Sall bokkul gis nga politique dafa changé. mais du aada du diine non du aada du diine. dañuy nekk ci lu ñuy wax awlama muy mondialisation. waaw daanaka maanaam politique gu démb ak tey bokkul. ñun lii maanaam intérêt dañu cee dugalul. man hmm. ñun sëñ bi sonn ñu de ñu ngi sant yàlla. man loolu bu baax a baax. kon léegi ñun bu keneen du ñëw fee naan dañuy jéem a jënd wala nangam sàng ay vaar yooyu ñun sëñ bi lii gëm-gëm la dégg nga wala bu fekkoon privilège dañuy jug rek directement. mais mais Abdou Aziz Abdou Aziz ngir intérêt sëriñ si bu ñu ba politique war nañu am ndombal tànk parce tey diine ji am na ñu ko war a mën défendre que tey boo demee Assemblée nationale da nga mën défendre diine bi mën défendre li nga xam ne mooy doomu daara yi di nga mën défendre alxuraan karim. waaw loolu dëgg la loolu dëgg la lu jaadu la. lu kii la mais am na ñoo xamante ne tey ñoo ñoo gën a placé ka taxaw foofu ko ñun am na ñoo xamante ne tey ñu ngi ci biir mouvement bi ay ay doomi soxna lañ mais tey peut-être dañuy occupé ne suñuy mbiri bopp ak suñuy suñuy suñuy lawraat ak suñuy jaamu yàlla. Mm-hmm. tey xëy na yooyu du ñu permettre ñuy dem ci assemblée wala ñuy nangam sàngam ak. mais am mais am na ay doomu daara yu am na ay doomu daara yu nekk assemblée nationale. am na ñu fa nekk. am na ay kër nañ mën ñoom doy nañu fa xëy na nag yàlla mën naa def ba jamono changé ngir ñu ngir dafa laaj ñun ñu futtiku mhm. ñëw changé yëf yi comme ni ko sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy defee doon defee ak sëñ Moussa Fass di ko defee mhm. xëy na jamono mën naa ñëw ñu ñu toll foofa ñu nit mais instant bi gisaguñ ni dañoo war a dugg ci yëf yi ñun nañ ne fii rek yor suñu misil ci suuf kurus gi kurus gi ak kàddu gi di wax di jàppale waa ji. waaye nag misil yi ngeen am tam misil moo tax am na ñu koy jàppale te boo xoolee ah, ñuy jàppale ñuy jàppale vraiment président Macky Sall ci course gi ragal naa boo leen dajee ah, per yi bu ñu dajee mbaa monsieur ba du am ci réew grève boobu moo gën a ko wutali <laughs> na bari nag fi mu toll nii loolu yéen ko mixé yéen xam nga opposant moom opposant moom fu ñu fekk lu set mu tilimal sëriñam soos mais loolu waa ji waxoon rek Macky Sall mi ngi ci xolu sénégalais waaye ci naqar la nekk ci xolu sénégalais. mais parce que ndax Sonko nag moom gisal li am. Sonko moo ko sonal de. moo ko ah, moo ko a baax misil da koo gën bi maanaam fi mu ah. Sonko bu fii léegi mu fees del waaw loolu mooy yàllaa ko may bàyyi moom. jeex na Sonko fu mu waxee ñaata du mujj def discours ñaata 80 nangam 11000 vues. waay xoolal Macky Sall bëgg dem discours euh, à la nation bi. mais mais baax nga gisoo gisoo rek benn risque mu ngi ci est ce que est ce que est ce que tey euh, président Sonko dina mën dem euh, dinañ ko mën a mu dem ci élection présidentielle parce que gis nañ fi élection député bi fi jàll mu jur jàll élection mairie yi dañ ko mujjé xoj. est-ce que ba tamit loolu ñaar fi ne li xeeñ ci li neexuma la élection mairie dem na législative yi lañ ko baare waaw lañ ko baare waaw mais loolu ak lii bokkul présidentielle la xam nga loolu maanaam Sonko bu demul am na ñu ko mën a wuutu ci ci ci législative yi mais est ce Sonko moom présidentiel ñàkk dem mooy moom man gëm ndaw ñi duñ ko seetaan. det lu wax élection du fi ndaw ñi duñu ñu koy baare. déggoo seen discours yi xanaa tamit booy Sonko tamit ah booy ñoom ñoom tiraillement beeg xeex beeg xuloo bi day ci mun na dem euh, élection présidentielle am ay sart yoo tax mënul tax tax dem parce que tey bu fekkee ne tey pare na ci Adji Sarr par na ci ci Mame Mbaye Niang te Mame Mbaye Niang ne def deuxième que war nañu yokk ndàmpaay aji saar ci yoon na moom Sénégal bi seen justice bi baaxul parce que moom ba léegi kenn mënul toppatoo violence bi ko moom moo am wàllum wàllum wàllum mais ah. moo jaaru élection yi ah, sërëx état bi moom ñaari tëna leen waaw ah. jàpp Sonko yomb na leen waaye téye moo leen jafe jéem a éliminer sonko di ko wax ci kàddu waaye def ya, ko moo leen jafe kazaali mhm. li naan sàcc ndëng ndënd yomb na waaye foo ko tëddee tëggee mooy problème loolu moo leen dal ci sonko ñu gis ne ñu gis ne eh, bi bi affaire jàllee ñu bëri gaañu nañ ci xale yu bëri yàqu ci ñu yàq ci lu bari est ce que tey en tant que yéen ay kilifa xaaral ngeen ci loolu loolu moom rafetlu wuñ ko te te buñ sañoon du am ndax jàmm moom jàmm rek moo moo koy kii mhm. li naan ku suuxat garabu fitna mhm. toog féexlu dina واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نين موت فتنة نحو نيو يريتي أبو قنم مثل الله يلال متنا تي شي ني غانيو متنا شي ني فات واي متنا تي تابو سنغال لم تي نياك ام لول گن لغي نك كي بوغ مانيفيستي ام نيكو درا كونستيتيونال مانام كونستيتيون مايكو مو مانا مانيفيستي تي جام باسيفيكمان مي بايكو والله الحمد والشكر مودم نياختو لي مي نياختو يا لولو مي نياختو دنج تي ديغي صاح maanaam la muy ñaxtu li ñu métti lii ñu métti Sénégal lii baaxul lii baaxul nga jël ci tiré ci ay leçons. Mhm. dem réparer loolu. mais yow doon nañ déedéet damay defante ñoom politiquement nangam sàng du ma leen may dama du leen jox autorisation ñu mën a manifester da léegi nag bu coxoo amee kan moo kan moo def loolu boo bàyyi naa la ngeen manifester ñu encadré leen ak du leen bàyyi naa leen sànni ay lacrymogène ak ak i bal ak i bal ngeen i ngeen i faatoo ko gaañu mhm. ba ba jàmm ba ngeen i taal ak a lakk bu gën a yomb waaw wadoor ah, a bu fekkee bii mooy indi jàmm nga def ko bii mooy indi ay nga bàyyi ko taxul terewul Macky Sall nekk président terewul mu nekk mu nekk kilifa terewul mu ne lim doon ala kulli xaale nangul nañ ko ni ah, ah, yàlla moo joxe nguur te moo ko jox. waaw mm-hmm. ah, moo joxe nguur te moo ko jox du du wàññi ci darajaam virgule mais maanaam bu fekkee day topp ñi nga xamante ne bi ñoo kujjee moom ci wàllu politique ak jeunes yi li ñuy li ñuy bëgg muy muy jëfante ñoom. Mm-hmm. di defante ak ñoom loolu du yëfu kilifa kilifa da ngay bàyyi lu bari. di masla di di di di di di jéggale di jëlale loo xamante ne bi nag constitution da leen ko may rawatina di seen àq di seen yelleef mais bàyyi leen ko ñu def ko bu ko defee jàmm ni ñooy problème du am kenn du gaañu sans du tàkk dara dara du kii ko defee réew mi am jàmm ndax bu fekkee yow yaa ngi bëgg a fekkee say occupation génn fii ay ay lacrymogène di am ñu xale yi baare tali bi nooy dematee malade bi war a faju ji mm-hmm. xale bi war a jàngi ah néew bi ñu war a denc wala kii bëgg a faatu léegi léegi urgence la war a dugg hmm. bu bu duggul léegi léegi day faatu mu ñàkk bakkanam xoolal loolu xoolal ak yooyu yëpp il faut ñuy bàyyi loolu xel ba bakkan doomu aadama dafa foor lu ndaw rek baara tey rek nit mën na jee faatu léegi léegi léegi léegi responsabilité bi. lu tax ñëpp di xaar président def déclaration troisième mandat yéen ngeen yàqamte ko ñu gis ne li bi muy def discours ci 4 euh, avril bi boole ci loolu bilan la wone ak doole bi nga xam ne moom la armée bi am dégg naa ñenn ci naan dañuy wane doole pour jëm ñoo napp pour rek xale yi parce que xam naa ak wàllum capacité maanaam réew mi ni muy yor ci kaaraange ak li nga xam ne tey wax na ko ci jeunes yi li mu nar a yokk ci wax dëgg yàlla nag ku wax wax na la. mais mais mais état continuité la. état am naa lu gën a maanaam lii baax na de. waaw mu xarab. Hmm. mais waroon ba léegi waroon naa romb fi Macky Sall bilan waroon naa romb fii mais on est en Afrique yow ñi ñiy défendre Macky Sall ci coronavirus non mais coronavirus bi moo ñëw dal ci kaw. coronavirus est ma troisième mandat Macky coronavirus dal ci kaw. waaw gars yi ñëw dalal suñu kaw. waaw mais mais mais attends psychologique la rek. Ah, parce que ñoom ni ñu amee plateau yi ci télé yi yéen tamit ñoo amee plateau ci télé parce que télé boo xoolee léegi politiciens yi kese ñoo ko ku nekk ngi défendre benn cause boo xam ne ni dafa mu tabax ci kër kii ah, jumaa yi mu tabax ci bari na surtout yéen sax yéen yéen daa na laa bëgg a wax ne ñiy défendre Macky Sall amuñu sax bilan bu dëgër bu ñu ko défendre. loolu am yoon ñu sont des affaires waroon naa fekk Macky Sall man gëm naa ne def na dara de mais waroon li mu def nii dafa tuuti waroon naa romb fii te loolu nga wax ci troisième mandat bi man xaaruma discours Macky Sall. 2019 hmm. discours am bi passé na yu nax duma bok parrainage 2019 moko waxon di wala do mo ah, waaw mom wax na wax na mom kon kay luñu dafa dal bo jaru xeyto jaru yak say nelaw jaru ah, yuxo luñu xaarat ay discours waaw mais nak gaay dugal nañ def kenkana ah, parce que ñu ngi jaat carte APR yi kenkana moy moy renforcer wat renforcer sen sen sen sen sen sen nit ñi dajale sen dooma kenkana kilifa warna moytu ngay wax ñu ñëwaat di tek say wax nga weddi sa bop kilifa warna moytu lolu président ma Macky Sall yéene wuñ ko lool yéene wuñ ko loola ñu ñëw. di kon yéen dafa tas seen yaakaar. instant bi li tax mu ñëw li tax ñuy ñaaw njort ni daa bëgg a dem. Mhm. mooy li mu ñëw naan wax naan du du wiitu xam nga sëñ bi yaa wax lii ñu laa yàlla maa ko waxoon ci laa ne ba léegi maa ngi maintenir loolu muy 2019 su ma Sénégalais yi wóoloo faraat ma pare naa ci. Mhm. loolu yaa xëyti yàlla day wax ne li ma na maa laa tafaalu lu tax ngeen di wax loo xamante ne du ngeen ko def. xoolal ay alxuraan Macky Sall gis naa fan yii muy ubbi al kaamil alxuraan. non non mais ku bëgg alxuraan. na ah, waaye sama toos dafa jàng non dafa jàng de non xam nga ña xam nga ñàngal bi ak fulla lay jàngee kaamil. xam nga fulla gi day day génn. léegi nag loolu ah. alxuraan maa ngi koy fàttali ne ko di mi ngi ubbi téere di jàng kaamil di yër kaamil. Ah. alxuraan yàlla mi ngi koy fàttali loolu mi ngi koy fàttali loolu. li ma taquluuna maa laa tafaaluun loolu ngeen di wax loo xamante ni du leen ko def te daa bari ci ay Macky Macky Sall wax lii dinaa def lii du ma ko dem def. Ah, mais mais non wax yëpp yëpp bu def lépp lépp lépp c'est dafa am loo xam ne leen tënk xam la ñaan dañu am ah, lu bari tey ñoom. tënk yi ñu tënk mooy li may wax rek gis nga président dafa libre amul benn lobby bu ne si moom di si ginnaaw muy lan euh, askanu Sénégal ñoo ne ci ginnaawam di ko financé. mais dégg naa ñu ne sax si réseaux sociaux maa ngi si ay sort yi ñu naan yaay jame moo ne ci ginnaaw. Oh, yaay jame waxuñu fan tuweel xaw fii naan ay xaw ma lan ak lan man am na ko ma. toog daal bëri na ci ginnaawam de na de. léegi si askanu Sénégal ñoo ne ci ginnaawam di ko jox seen i xaalis ngir bu ëllëg bu bu bu faloo askanu Sénégal boobu ñoo koy conditionné. mais président yi fi jaar ñu France mhm. da leen conditionné. Mhm. France daa ne woon seen ginnaaw bu ñu nekk opposant wala ñu faloo da leen conditionné nangam sangam mais Ousmane Sonko dafa Euh, ci bëgg Afrique. ci ah, bëgg dëkkam. en tout cas daal am na xaalis. am na xaalis léegi nag léegi loolu noonu bu faloo. baatu askan bi ko doon jox di ko di ko jox xaalisam ñooñu lay liggéeyal. mais yéen tey tey tey tey par tey par ngeen pour fay 200 millions yi nga xam ne moom la ma ñaanaan moom lañ ko daal. dara ngeen ko fay ay fay ay fa mu fay ko nag te bu fayee def naa cent millions yéen sëriñ si yéen ko moom ñeneen ñi moo na yéen kilifa yi a nekk seen côté ñoom dañuy jël am nañ ci droit am nañ ci droit ñun bañuñu maanaam ñun nang ñun bëgguñu yéen leer na waaw yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñoom moom bëgg yéen bëgg ngeen te gëm nañ ñun ñii ñun ñii ñun ñii nga xamante ne bii ay ay ay sëriñ lañ nekk ay ndongal daara yori daara juddoo ci daara màgge ci daara ba léegi ñu ne ci daara yori daara. Mhm. di teg dafa ay nit ñuy jàngale ñu leen di fay. gëm nañ ni ñun kenn gënuñoo bëgg daara kenn gënuñoo nekk ay sëriñ daara kenn mhm. gënuñoo bëgg daara. dëgg la ba ba ba ba keneen koo jox yëf yi. man mhm. gëm naa ne kuñ bëggoo sëriñ daara rek. mais sëriñ daara dëgg dëgg dëgg dëgg. du ñëw fii ma mbañaa di ko jox lii mu naan da ko jël maa la wax lii sëriñ daara dëgg dëgg dëgg sëriñ daara bu ko fi jël doo sëñ daara ñu ñu gis ñu gis beneen phénomène bi am mooy réseaux sociaux yi mag ñi diine yi bu ñu waxee ñu saaga leen. mu nekk lu ñaaw ñu koy jiñ nag jeunesse ànd ak yu sonko yi. tey demee ba kilifa diine toog ne bu yeboo sax ñu saaga ma. est-ce que tey euh, amuñu benn tënk bu ñu tënk kilifa diine yi moom ñu mag ñi nga xam ne ñoo toog ci daa ci ci kii mooy xalifa généraux yi. est-ce que tey tënkuñu la tey parce que. politique yow yow da nga gis benn Sonko ku ànd ak Sonko parce que non ci réseaux sociaux yi laay gis ñuy wax man. gisuma kenn réseaux sociaux yooyu nag. ñu naan non booy Sonko yi la. koo def ngir ngir taxal Sonko. parce que am na benn booy boo xam ne ni moom bi mu génn dafa ne man booy Sonko laa waaye saaguma benn kilifa diine waaye nag dinaa jubbanti ku wax ma jubbanti. maanaam dafa dafa dañoo toll foo xamante ne bi tey réew mi daa toll foo xam ne. mooy si mhm. suñuy suñuy maam la ñi suñuy baay mm-hmm. xalifa yi mm-hmm. ak ñi nga xam dañu bi dañoo topp ci ñoom nekk seen rak mm-hmm. yenn discours yi man man man man dama dama man suma sañoon wallahi lii di leen dal nii ñu leen ni kii wallahi wallahi gënalu ma pourtant waxu kilifa lañuy waxee de xolal non am na kilifa am na nooy waxee am na nooy waxee maanaam du du waxe du waxinu kilifa kilifa man ngaa wax même boo ànd ak Macky Sall mën ngaa wax sa wax jugi am ah, ak lañu àndal nangam sangam moom lañuy jàppale keneen ko keneen ko bëgg ànd ak kenn am nga liberté mais bu jë bu warul warul fekk nga génn doon kilifa. Mhm. maam ni di ñëw di attaqué euh, Ousmane Sonko directement wala indirectement. non moom ak attaqué kenn dafa. am na ñoo xamante ne bi dañuy ñëw am na ñoo xam ne euh, loolu jàmm la ñuy ah, di lu ma maanaam am na ñoo xam ne dañuy taxaw fii nii euh, vulgaire violeur. xam nga attaqué ko nit te wóorul na ni dafa violé amagul benn preuve bu yoon dafa violé waaw lu yooyu moom xam nga yooyu moom du kaddu kilifa yooyu du kaddu waaw yooyu du kaddu kilifa man man ki ko wax waaw ku ma bëgg la ku ma naaw la sama sañoon waaw gis naa gis naa vidéo muy circulé nag bu baax sax sama sañoon dugg ci gam boobu ba ay ba ay nit di ko ci wax loo xamante lu ne dégg na ko ci nag lu ne dafa naa dootu ko defati ku ne ku ngay ñaan nangam sànga wax Ousmane Sonko wax ko dëgg amul problème ku mag ko wax Macky Sall dëgg amul problème am nga ci droit mais bu fekkee da nga sa sa kàddu dafa xaw a la wu rek ñun ñun ñun ñun nga xamante bi ay kilifa lañ te yàlla def ñuy gis suñu bopp ci Ousmane Sonko. léegi nag euh, dernière question bi ci premier partie bi. Hmm. muy euh, politique en général tey yan lan ngeen xaar lan ngeen xaar ci ci ci euh, yi di di war a avancer ak 2024 bi nga xam ne nii yéen a war a ànd ak moom pour dem campagne mu nekk campagne bu nar a métti. Hmm. que xëy na ngeen dem wóor na man gis ni maanaam maanaam maanaam fi mu ne nii Sonko lii koy dal nii yëpp yàlla da koy wan teg. ngir ëllëg bu faloo. est-ce que amul appareil poli est-ce que amul appareil politique soo ko amul appareil pour problème appareil. parce que Sonko tamit euh, moom tamit war nañu xool ko entourage am parce que moom communication dafa xaw a doy loo xam ne nii parce que day saa gis Sonko waxee fi day saa nga dégg ko boor maanaam vaar la xale yoo wax vaar. sérieusement yéen saa nga dégg ay VAR parce que non am na ak bëri naa ba ay yow kay sax nga gis Sonko yi nag <laughs> Sonko bu njëkk ba ak Sonko bi tey xaw na wuute de xaw ma nag doole bay bëri léegi wala nit ñi engouement xam nga client yee bëri non attends xam nga lan moo changé waaw lan moo changé ci moom mhm. changé mu fekk ko ci ay complot yu ñàkk fayda ay viol mais donc si discours ba muy kii di indi xam-xam di bind ay ah, en tout cas VAR yi bëri na fekkoon ci terrain boobu Sénégal avancé na romb na fii kon tey lu ñu naan ay nangami moor wala yàq nañ lii yàqal nañ diw ci place am nangam sànga dañ ko fekk ci si xam-xam ñu gis ne Farba Senghor soxal dafa sonal Sonko trop Farba Senghor moom soxal sonal na leen de ah, moom daal Sonko comme xale buy dem faw yi bu heure mu ne mën a ko acaca demal faw yi moom daal boo kiiwul Sonko daal xaw ma lu tax loolu moom jàpp sax Sonko président la war na doon président mu gëmu ko de dañoo ne ci système bi te bëgguñ mu jeex moo tax Sonko du leen arrangé classe googu mhm. loolu rek moo leen dal ay mag yoo xamante ne bi yéenewuñ ndaw ñi seen avenir mu baax ñu toog fii rek ne ci ay milliards di noos bàyyi ah, taalibe yi jeunesse bi ñu ne fii ñoo xamante ne bi ñun rek lañ gëm yaakaar na ñu ñu dox fee di ko noosee ah, ak seen njaboot. Hmm. bàyyi nañu di sonn di souffrir fii te Sonko xam nañ ne bu ñëwee mbir mi sàppee day jug loolu waa ji dafa naan sàppee day jug. Hmm. mbir mi day leer ñu teg ko ci yoon sàcc dootul am tubaab bi dootu ñenn du yóbbu cinquante cinquante lay doon. léegi bu ko defee nag ñoom ñoom dañoo dañoo xamul dañoo xamul mais loolu arrangement la ci dañ ko bañ ñoom ñi ñoom ñi xeex Ousmane Sonko xamuñ ni Ousmane Sonko li mu man gëm naa ne Macky Sall biir xolam intérieurement wallahi li mu bëggoon avant muy falu doon ko wax bi mu faloo di ko di ko maintenir ba yàgg mu changé man gëm naa ni gëm na ni Sonko mi mën na koo changé mais faaw mu def affaire politique nangam sàngam man gëm naa ni Macky Sall bëgg na Sonko man ndax ndax gëm gi mu gëm boppam ak panafricaniste gi muy oote ressources yi des fi affaire bi des ñëpp bokk ko man gëm naa ne Macky Sall maanaam pétrole Macky Sall da ci am pexe zircon bi ndax ndax ñu ne ginnaawam di ko kii comme ah. Sonko amul kii man suma suma doon moom wallahi ah. dama naan Sonko demal nga doxal Sénégal réussir affaire bi dox ndax yow gis nañ ni nga gëm sa bopp nguur daa neex amul amul amul loolu amul fen ah, nguur daa neex mais nguur goo xam ne sénégalais yi ñoo la ko jox bul neex neex neex sénégalais yi sëñ bi ñoo la ko kii ñu gis benn phénomène léegi nag Sonko lii ngay wax nii ci affaire 2024 ak procès yi ñëwaat ak yooyu na man damaa gëm ni suñu borom subhanahu wa taala mu indi ay nattu ci kawam won ko ni ko faaw nga daj coono faaw ñu sonal la faaw nga toj sa vitre oto faaw ñu génnee la yanu la yóbbu gaañ la dox pomp mission la ndax lan ëllëg bu faloo xam ni coono gi ma doon daj dama ko ko hmm. teg askanu Sénégal du ma leen rey du ma leen du ma du leen du ma du ma eh, réduire ay opposition opposant hmm. di leen jéem a tëj di leen a yàqal seen di yàq seen crédibilité fi ñàkk fayda man gëm naa coono yi muy daj hmm. wallaay du doxalee ah Macky ban ban métier la. ci moom moom rafet moom dañ ko tagal sur la plat. waaw moom sur la la. li gars yi tooñee Balla Gaye naan daa ñëw rek ñu ñu ñu la ko yoon géewal ko. léegi nag euh, ñu jeexal premier parti bi euh, mu nekkoon politique en général. Euh, vraiment tamit ci mouvement bi. en tout cas du ngeen ci man nationale xam naa nag da ngeen daj lu ne. da ngeen daj lu ne moom te xaar leen tamit léegi yow boo dee sa talibé mu nekk APR. yow nga nekk fii du du du yàq diggante. amul problème du yàq benn diggante man man maa ngi koy wax fii tey. waaw ma première fois. sa taalibe waaw boo xam ne sama taalibe. waaw ah. nga bëgg Macky Sall am nga ci plein droit boo neexee. bu fekkee nag wax naa ba convaincre la ci Ousmane Sonko. Hmm. comme Sonko ni muy convaincre ñu bari. Hmm. ak keneen ak keneen ni muy convaincre nga ñëw ñu ànd ci yëf yi jàppale ko te loolu moo ma gënal su ma soxee man ku ma ku ma gëm man. Hmm. baa nga bëgg ma sopp ma. am ñoo xamante ni maa leen jox wér. ñu samay taalibe lañ ma tërbiye leen ba xam seen borom. ku ci ñëw alhamdulilah am nga ci liberté man amu problème boobu man sëriñ si sax ànd ak ñi Macky man amu problème ak ñoom. Hmm. man l'essentiel booy wax sa discours rek. na na tegu ci dëgg na rafet. na tegu ci dëgg amu man amu problème mais boo fekkee da ne génn ni Macky Sall la àndal comme ni am démocratie lañ ne. am nañ droit ni kii lañ àndal. kii am droit ni kee la àndal kii am droit ni Idriss Seck kii am droit ni kee la àndal. Hmm. te bu fekkee da nga gëm te te yow man gëm naa ne taalib yi ñoom la ñuy dimbali ndax ñun ñoom xam nañu man ñu ma ci gëm ak ñi ma sopp xam nañ ñun hmm. ñun sonn nañu hmm. ñu ngi si jàmm alhamdulilah ñu neexoon toog di xaar yi at seen i addiya mais ñoom la ñuy dimbali ñoom buñ neexoon ñi ñenn sëriñ si def nii di di kii si suuf ñu toog di yaatax neexoon ñu ne ci voilà ñu dem ci deuxième partie bi euh, def naa ne doo yëngu rek ci wàllum politique loolu dafa la ñëw fekk si la dab la pour nga bokk li nga xam ne mooy sa empreinte rek ci Sénégal ni muy doxee euh, ñu dafa naa dëgg dëgg da yëngu ci wàllum ñaan mm-hmm. ah yu mel noonu moom nu muy demee ak fu réew mi toll léegi gis nañ tam sëriñ si bari lool nag. waaw ay sëriñu pàkkatu ak original la doo xamante affaire dafa mel ne dafa mel ne casque casque chinois yi sax léegi doo xamee kii ak kele léegi nag ñu mélangé yoo xam ne tamit bokkul muy sëriñ si nga xam ne def taaba taaba ak sëriñ si nga xam ne kilifa diine yi doo xamee daal ñu bëgg a xool loolu mooy lan mhm. waaw loolu de moom maanaam maanaam loo gis rek lañ loo gis règle maanaam loo gis ñuy baax rek am na ñoo xamante ne bii maar day taal mhm. ay poson lañ ci léegi nag damay lancer suñu bokk sëriñ si ñi nga xam ne ñoom dañoo bokk ci kër diine yi mhm. nga xam ne ëllëg ñu leen di yaakaaree ñu bokk ci ñu kilifa yi nga xam ne ñooy décider ëllëg mhm. ñu génn di dimbali jaamu yàlla yi ci lu mel nii ndax ñi ñi jug nii di di naxaate moom dafa war a jeex de ah sonal lañ nit ñi ñi ay comédien lañ ñi ken xamul lu ñuy def na ci plateau yi di comédie ni ni ngi di leen di leen di leen di leen yablo ñu neen dama gënd nangam dama gis sangam dara gisunu ko dara gisunu ko lañ bàyyi li ñuy def man nga ñëw ni dama li lay ñaan nangam sangam fekk nga am xam-xam nga bala nga ko def sax war nga xam man la sala deug deug deug deug amna ñu ci baax nak ñoo xam mm-hmm. ñu ngi ci yoon wi mm-hmm. alhamdullah ñu leen encourager bu fekkee man nga lasraar man alquran maîtriser ko moo ko alquran man ko am nga droit nga génn ni damay def li mën naa nangam mën naa nangam damay def li ku la seet si alhamdulilah sa diggante sa borom la boo waxee dëgg yàlla xam na mhm. boo waxul dëgg yàlla xam na boo naxee nit yaa yaa moom ëllëg yawmal qiyaamati nga lekk xaalisam du baax si yow. du mm-hmm. sa wér gu yaram sa njaboot. Mm-hmm. ñooñu di génn il faut ñun ñi nga xamante ne bi tey yàlla def na ñu ñu amuñ xam-xam sax waaye am na lu yàlla def lu yàlla dogal si ñun il faut ñuy génn di di wax ak jaamu yàlla di leen dimbali ndax nit ñi sonn nañ. Mm-hmm. fi ne nii wax wax ci taxaw ci politique rek di leen di wax ak ñoom rek toyatul il faut ñu génn. ñu ñu am accès ci ñun. wallaahi ñu gis ñu. mais nag da ngeen neex a jot tamit. ñu gis nu waaw ndax lañ de sëñ bi. waaw loolu des fois xam nga yéen sëñ sëriñu VIP bari léegi. waaw da nga dem bi bëgg nekk bi naan la noonu day day lópp parce que gis na ne gaaroo oto. carette nga ñëw wala nga ñëw ba ngay ñëw sëñ bi ban marque la. waaw déedéet xam nga mbaa yorul marque ne musique lu tax loolu ñun moom souvent pour ñu gis ñu xanaa bu ñu nekkul suñuy lawraat mbaa ñu ne suñu jàngu alxuraan wala nangam sàng boo ñu waaye fëggee alhamdulilah daañu la recevoir la ñuy la ci base ñu jëflante ko ci yow. te mm-hmm. ñaan nañ yàlla ñun ku sa aajo nar faju yàlla bu ñu xamante waaw si lu mën di doon ku sa aajo nar faju nag yàlla yàlla boole te ñaan nañ yàlla gis nga gis nga ñaan dafa am ñaari mbir. ban ak ban. li ñuy tuddee nuraaniya ak zulmaaniya. Mm-hmm. ñiy dox ci leer mooy ne ci alquran ak ci turu yàlla ak ci tegtali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahadith nabawiyya yoo xamante ne bii ci wàllu ñaan lay dox. Mm-hmm. ñooy ñooy dox ci wàllu leer. xam-xam boo xamante ne bi tey dañuy jaamu seen borom ba dem ba yàlla sax lay nekk seen nopp dañuy dégg mbir rek yàlla faj mm-hmm. du ci ñu lu jar sax ñu lay bindal wala ñu lay wirdal yor nañ tur yàlla di ko sikar di ko sikar ba tur boo bënn mm-hmm. bënn gi nag du gaaw da nga ne ci ay at sonn lool na ci toog ci der bi tarbiyu ko mm-hmm. ba tur bi bënn bul yàkkamti léegi nag ñu bari dañoo yàkkamti dañuy leer benn tur rek laal naa ah lii daa kii bër gaawul teg ko fa dem benn benn mujj gi moo leen dugal ci zulmaan yi lu ñuy wax zulmaan yi mm-hmm. mooy xam-xam bu lëndëm fétiche yeeg jabar geeg dafay tappale naan damay changé ndox meeg mm-hmm. damay taal ataaya ci gaz beeg yooyu yëpp mooy waral ngir la lëndëmal nit ñi mu ngi néew kon yooyu yëpp du dara yooyu du dara ay image la ay ay ay xam-xam bu ñuul la mm-hmm. xam-xam nag bi ci gën saxel sëriñ xamante ne bi tey wóor na ni na am na xam-xam mhm. jàng na alquran maîtrise na ko tey boo ko ni woon toogal fii tafsiral ma alquran mu tafsiral la ko mhm. soo ne ko woon waxtaanal ma fii conférence bi nangam sàng mu defal la ko mhm. am xam-xam bu wér lasraar jàng ko maîtriser ko am ci secret yu wér yoo xamante ne bu la ko defalee ñaan gi dina nangu mais tey nga gis koo xamante ne ku génn rek nga jël numéro woow mu dem nax la nax saxaa nga ne gars yi yam fekk ñëpp yam il faut ñun ñu génn wax ak nit ñi maanaam wan leen ni leen lu wér li fi mag ñi yoroon mi ngi fi ba léegi am na ñoo xam ne sax bëgguñu génn télé bëgguñu déglu déglu rajo. Ah, gis naa ñu bëri dama leen di woo ñu ne ma non Lodia man bëgguma def. ndax ndax parce que même bu nekk dëgg laa def sax su ma ko defee du du ngi def lu am solo. lu am solo lu am solo ñu ngi ñaan di faj. di social di def social. comme Pape bi nekk grand day def social ci suuf ndeysaan da lay faj may la paas. ma wax sànq rek ñi nekk di comédie def yoo xamante ne bi tey ba dem na ba ak cëriñ amatul valeur. ñu gis rab yi bari na ci ci jigéen ñi. Mhm. daanu gi bari lool foo dem seen ñun la rab nga am surtout jigéen ñi nag ñoom dafa mel ne rab rabaat na bi seen biir la dugg. Mhm. Euh, loolu da nga koy faj parce que gis nañu xale jigéen léegi pour ñu yàgg ci sëy fase gi tas gi bari na mhm. loolu daf surtout loolu mooy phénomène ah. xale yi bëgg nañ sëy du yàgg ci sëy xeex bi rànk ñene bi nit day jëkki jël jam la paaka te du tiit lan ma loolu. waaw loolu li ci bari li ko bari mooy man gëm naa ne sax yu ci du rab du jinne lu ci bari ay intérêt la rek maanaam jigéen ñi léegi soxna yi sëy gi léegi waaj am na 4-4 yor ah. na oto nangam sàngam nga dem waa ji profitoo ci sa matérialiste goo nga nekk mm-hmm. profitoo la ñëw di la wax lu dul dëgg ah ndaw si que lii la bëgg xaaral ma ñëw lu oto ah. xaaral ma ñëw ko am naa appartement ndax nangam bu ñëwee takk la nag xeemeem la am kii commencé waat di taxawaale ko doxaan ne ci àll bi bu defee nga ne ah waa ji ma doon wax waa ji daa ma ñeme yàlla daa mën a fen dugg na fi génn na fi sëy ba tas deux mois un mois mu tas ñu ah rab yi la nangam sàngam jinne yi la fekk man yu am na yoo xam ne rek rab da koy def am yoo xamante ne bii liggéey dina ko def am na loo xam ne cat dina ko def làmmin et cetera loolu dina jàpp soxna ba ba du am man am borom kër. Mhm. dina ko jàpp ba bu amee borom këri it du ko may jàmm. yooyu mën nga ci yow moom def naa yooyu mën nga ci def. waaw ñun ci dañ ci dañ ci dañ ci dañ dañ ci dañ yu bëree bëri. Mhm. mais damaa gëm ni ci ëpp moom ay ay ay ay tappale la rek ñu ci bëri dara jotu leen waaw dara jotu leen ñoo ñoo ñooy sàggane. ñoom di di di xeebaate di xeebaate sàngam te mm-hmm. mbir nit bu di dugal bu la sëy di dugal ci moom na yàlla ci lal benn intérêt. ñu gis tamit côté góor ñi. vraiment ay feebar sexuelle ak loolu. góor ñi nga bëgg a dee sunguf ak ak naan ndox ay ndox loolu moom loolu moom loolu lan la. est-ce du problème réew mi moo jàpp ni rek mais du question ñàkk ngóor a. est-ce ji. non mais xam nga jimboo yàgg nañu ko nekk ci réew. waaw jimboo jimboo ji yàq na xel yàq na tubaab yi. déedéet mais est loolu tamit yàgg na fi réew mi nit ñi di ko lekk mais est-ce que du problème yi ñoo. ñoo ëpp nit ñi daawuñ ko toggee léegi de. ah léegi la toggee lu ne gis. ak yeneen ak yeneen wàllu rab it dina ci ay laxasu. Mhm. wàllu def-def dina ci laxasu nit maanaam cat ak làmmiñ dafa bon mën na la jàpp ba jàpp sa lu bari. Hmm. bu teewee say mbir nag alhamdulilah yàlla dogal na ñun am ñu am na ñu ciy joxe. yoo xam te ne yàlla mën na laa dimbali ba ba nga nekk fa nga newoon. ba mhm. dootu la dalati wàllu feebar yu ci aju it yu dal nit wàllu ndoxu si teeg wàllu hémorroïde ak asma yooyu yëpp yàlla dogal na ne am nañ ci mbir yoo xamante ne bi ay garab yoo xam ne ñu ngi ko joxe te lépp ci alxuraan la jóge mhm. boo bi mooy kaamil alxuraan ñun daa lu ñu dëpp kay daan ñu sotti ndox ngay bërëngu comme li ma gis ci réseaux sociaux yi daanu la ci xataa bu la rab jàppee ba nga bañ bañ jëflante li ma lay jox dama lay jox ne la demal sa kër nga def sa traitement mhm. lu ne fi di la xëpp ngay daan yuuxu yooyu bari bari ci ñoo xam ne da ngay ñëw lañ lay jox mbaa la ñuy tari ci yow moo lay daaneel euh, bari ci ñoo xam ne amuñu rab de euh. man su ma neexoon fii léegi nga xalaf xalaf bi non sëñ bi waxatal loolu nga ne xalangoog lu ne nga dugg ci ñoom ñoo la sotti ndox ma ma ni ñoo xam ne <laughs> su ma am wax su ma ko tari woon baa ma taal fii benn cuuraay léegi léegi léegi nga commencé xalaf xalaf bi nga ñëwaan damaa am rab sama mais nit ñi dañu yeewu xolal naan sama liggéey bi doxut damaa bëgg jëkkër mu tëma wala damaa nangam sangam sama di daa tëju damaa am rab xaaral dem ci sëñ mu ñaanal nga dem mu defal loo xam ne ngay xëlëf xëlëfi il faut il faut ñu xàmmee il faut ñu xam man gis nga rab ku mu jàpp rab ku mu jàpp sëriñ dëgg dëgg dëgg mën na koo xàmmee ba xataa mën na la jox loo xamante ne bi tey du aju ngay ñëw ci moom sax wala boo ñëwee ci moom da lay jox lim lay jox ni la demal nga def nangam def nangam man am na loo xam ne par exemple man boo ñëwee lu ma lay jox looy jàppoo la. Mhm. dama lay ci jàpp jox la looy a sa kër. doo ne fii di xëlëf xëlëf rek daan ma lay sotti ay ndox ngi la rek ngir bëgg attirer attention nit ñi ci yow déedéet loolu maanaam yokk yokk làmb ci réer nangam sangam sëñ bi nam def. sëñ bi ñu gisaat beneen phénomène mhm. euh, euh, ñu gis réew mi mhm. euh, tey da nga jege ñu ne nit ki am na alal te xamoo ci lu muy yëngu bon ñenn yi naan wërsëg la ñenn yi naan am ñoo xam ne dañ lay jox jaaro jaaro bi daal boo ko boo ko takkee moom daal loo bëgg da nga koy am jaaro bi daal magie la je sais gis nañ sax ñu ko def ci réseaux jaaro bi jaaro bi jaaro bi ci dëkk bi ah, lan ma waral jaaro boobu jaaro nag jaaro yi nag secret yu wér la am na yu ci wér comme li ma wax sànq sëriñ si hmm. naxe hmm. ci bari am na noonu ñuy naxe noonu la ñuy defaree jaaro yoo xam ne baaxul hmm. ñu dañuy liggéey original am na faux bi na faux bi am na secret yoo xamante ni bi tey par exemple jaaro ci jaaro lay dem ñu koy tuddee kanzu malik bu hmm. ko defee si jaaro yooyu nga wax ay sa ak ay bay reek yooyu da cay dox hmm. ay muslaay dafa am am na yoo xam ne téere koy def hmm. boole ko jaaro mu doon ensemble mu doon chamsu bilaal loolu secret yooyu yu la mag ñi dañ ko doon utiliser di ci gis ay résultats mais léegi am na ñoo xamante ne bi am na ñoo xam ne boo ñëwee naan jaaroo laa bëgg maanaam lañ la cay bindal boo ko ubbi xool ko maar d'Italie am ñoo xam ne bind bu baax sax mënuñu ko ne dañuy ñaan bind alxuraan ju leer ju leer am ñoo xam ne maar d'Italie xëy soqal si kim lor sa kaala nangam sàngam nit ni sëriñ laa mais sëriñ bëgg a doon sëriñ taxu doon sëriñ de sëriñ daa am fooy jaar dès le bas âge mhm. bi nga nekk ndaw mu judd ñu tërbii la ci yóbbu la ci daara ji ngay tilima ko taxawaal ñu jàngal alquran ba nga ba nga man ko mu la yeewee guddi guddi tar tibb aaya nga nga dem sa yoon dafa am lu ñëw sama xel léegi ma bëgg a reetaan euh, ma ne euh, tey bu leen Macky Sall woon yéen seen seen bi pour ngeen ngeen ngeen xaatimal ko ngeen xaatimal ko Euh, kii euh, seen seen waaja est mu jox leen ndàmpaay bu bëri moom da ngeen nangu parce que yéen tamit euh, tey da ngeen nekk ñoo xam ne tey vraiment ay ay acteurs ngeen. da ngeen di da ngeen di liggéey. à par rapport des politiques président Macky Sall mu ne leen soxla après avant élection yi ngeen defal ko ay xaatim pour xaatim ko Sonko nga xam ne bu avant élection doo xam fu mu toll. day day day day <laughs> ba dam leen daal bu ko bëggee. waaye daal ay xaatim Sonko loolu bu ko jéem Macky Sall doful sax. xam naa. ah mu ngi daal ñu defal ko ko balaa ngeen ko ah, sang. sang daanu nguur. moom la rek ah. ñun ñun li ñu yor ñun li ñu yor ñun. soxla xam naa fi mu toll moom mu ñëw di ko di ko. léegi bala moo la leen indi ndax ngeen ah, jàkkaarloo parce que mu ngi noonu <laughs> en ñu ngi kontaan ci bu baax mhm. Euh, vraiment doy lu ma ci yow mais lu lu jiw jiw jëgul euh, li jiwul jigu xam ma jógu fa dañ ko war a def ñaaj di waxate euh, rafet nañ contentement bu baax ànd ak yow ci ci ci ci seen kàddu mm-hmm. vraiment émission bi neex na trop parce que wax nañ ci l' essentiel li nga xam ne rek moom la réew mi doxee jamono bi tembe Abdou Aziz ah Abdou Aziz Seck Kamil mu mm-hmm. ngi noonu di la ziar bu baax nag di nuyu nag sama xarit Babacar tamit namm naa ko bu wér moom tamit xaw su ko mën a jot incha allah dañ ci waxtaan a yaatal en tout cas émission ñu ngi nii mm-hmm. saa euh, euh, yi nga xam jamono bi temm ñu ñuy bàyyi xel saa ne macha allah euh. ci dimbali jaam ñi rek loolu ba tax ñu ñëw mm-hmm. pour ñu fan jëfaat ñi nga xam ne ñoo mm-hmm. bi woo dañ lay woo sañ bi damaa sëriñ sàngam nga ko gis internet jël numéro wala dama ko dañ maa booleeg moom affaire këyit ndax na ma lekk sama cinq cent mille wala sama nangam. Mhm. wala sama soxna si tubaab si wala sama sama famille dañoo jubawul. Mhm. ñu ngi leen ñu ngi leen di bëgg a rey maanaam maanaam ngir dimbali leen war nañoo tax it ñi xam dara génn wax ak ñoom bañ bañ am si ñoom accès. Mhm. ngir jëflante ak ñoom ci wàllu papier yi ñu bëgg ak bëgg a tukkee ci aju. loolu lu mat a bàyyi xel la ndax sonn nañ de. ñu ne bitim réew waaw mooy ñu ne bitim réew yaay sori la soxna sori la lépp sori la. dèjà sax am na am na ku ci jot a denc sax ci nungu seen gi ci problème yooyu. waaw gis nga sëriñ si gis nga yooyu baaxul waaw arnaque la loolu mooy arnaque. arnaque di arnaque arnaque bari na trop léegi nag il faut ñu xam ne ñi nga xamante ne bi tey dañoo yor baatin bu wér ak ñu yor baatil mhm. baatin dafa am ak baatil ñaar mhm. yooyu ñoo nuroo nag tegi boo ko dof boo dof dof boo kiiwul baax doo xam ndax gis nga ñaari baatin ni nuroo ci arab baatin baatil bi nun moo leen séparé bi làmp boo xàmmewul ku ku gis kii rek nga yaakaar am na baatin nag musiba la moom. en tout lu ci lu ci mën tam daal euh, ñun dañ la seet si. uniquement pour ci xam-xam en général. jàll say numéro incha allah loolu dañu ñëw ba kër ga. daal jakarlo yow en tout cas ñu ngi lay ziar bu baax ba sen émission il est temps kontaan nañ bu baax ci dalal gi ñaan yalla sit bi yalla gën ko yok amin amin amin daf ci ñaan nak da ngay bok ci yéen ci biir ak ci biti qalban wa qariban amin ci zahir ak ci batin amin ba yalla gën a yëkkati yëf yi amin ba ba sit bu fi ne rek bi teg la tànk amin amin amin daan ci and ci zahir ak ci batin inshallah fu ñu soxlaa disponible lañ amin dañ leen taxaw inshallah allah inshallah inshallah allah insha def ci tawfiq ba ko gis rek bayre bi son ko am yalla ko sit bi am amin barke alquran barke ah masha allah kon de Mame Bayre di topp soo ko bés mu ma toppee moom dafa naa ne tere laay jëndi <laughs> voilà mu ngi noonu ah ki ñu dalaloon mu nekkoon suñu kilifa nek kilifa diine bu maga mak ñi nuy tamit wa pir bu wér a wér di nuy kilifa diine bi fa nek ak kilifa diine yëpp ci aduna bi euh vraiment Abdou Aziz Dabax laa lay woyé mm-hmm. parce que ce tourno boobu gis nga ni mu doon doxé Abdou Aziz Dabax Mali da doon jël rek di di wax ci lu bax di dox ci lu bax référence ngi noonu man gën a réew mi bokk na suñu référence ñun billahi nee ko mam joyna mam joyna la ko sa suñu ñu ngi joy sa suñu voilà sen émission il est temps ñu fi la doon amee ci kër gi euh fi nga xamné rek moy cadeau askan bi voilà voilà sen cadeau euh, TV international ñu ngi nuyu internet yi di nuyu itam ñëpp ñoo xam ñu ngi ànd ak ñun maag sëñ bi nag pareeguñu am na beneen plateau këram boo xam ni ci wàllum paj dong la mu jàlle numéro am baaxe jaam yi mu ngi noonu kon asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ba ba ci beneen numéro incha allah merci